Eh, jërëjëf euh, sunu mbokk internautes yi mbokk yi MPROD TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax waaw di leen ñaanal jàmm ah, di ñaan ci réew mi jàmm di nuyu képp koo xamante ni doomu réew mi nga ak foo mën a nekk partout dans le monde mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbokk yi macha allah tey dañu dugg si parcelle. dugg si dëkku say ñebe bi tey dugg si dëkku muudu xarañ loo dugg si dëkku ñaa xarañ loo waaye dañ fi fekk si ndaanaan dugg si dëkku Mansour Ba le PDG de jàmbaar ñëw fekk fi ndaanaan nekk fi fekk sunu papa fekk fi un grand champion muy Père Ndiouga Dia nga xamante ni moom bu Modou di di bu dugg see ci biir arène bi dafay neex lool waaye nag balaa ñuy avancer balaa ñuy avancer Médoune non xale bi ñaw lii ma sol nii neexul ba neexul mais ndaanaan la. waaw kii moom mooy euh, El Hadj Couture El Hadj Couture Médoune gis nga li mu ñaw waaw ma nga nekk ca euh, Kër Mbay Fall tol jazz waaw xale bi sur mesure lay ñaw ba pare ni mu koy defee dafa rafet waa macha allah man bëgg naa bu baax a baax xeetu ay ñawam waaw tubéy bi pantalon la koy def booy bi dafa mën a ñaw waaw na ko nañ nañ ko seeti képp ku bëgg ci ñaw bi rek ah am na yeneen am na yeneen am na yeneen modèle yoo xamante ni daf koy ñaw professeur la ci dafa aay dafa mën a ñaw macha allah rek yàlla na la yàlla fal cat numéro am 78 la ah 78 107 71 05 78 107 71 05 ah El Hadj Couture Kër Mbay Fall Tol Diaz merci beaucoup tey Père Ndiouga la ñu seet si. per dama lay bàyyi nga nuyoog suñu mbokku internet yi nuyoog réew mi nuyoog biti réew tey li ñu war a waxtaan bari na de. Serigne Juga ngi nii medun keroog bi Moodu di bàkku digganteem ak Boy Niang moo jekki saxay rek na foofu daw dugg ca biir eh, dugg sa diggante Moodu ak xale ya waaw daa di daa am na lu mu bokk da bal a bokk waaw ndeysaan indi indi indi lu doy waar culture keroog nga indi. Père Ndiouga maa ngi lay nuyu. waaw ñu dellu santaat suñu borom tabaaraka bi nga xam ne mënu sàkk. waaw déwul nu wér gu ànd ak sutura ak xéewal. Mhm. ñu koy sant bu baax di ñaan mu dolli ñu. ndax euh, àdduna bu la fa yàlla bàyyi nga ànd ak maas. Mhm. ñu gisatoo leen. ñii mën a tun ko ñi tudd ñu leen bu la yàlla jagleel nga bokk ci ñi tudd te tudd bi di tudd bu baax ak sant yàlla la maa ngi sant yàlla sama borom bu baax a baax Baye Balla di la nuyu di nuyu Madou sa caméraman di nuyu Sénégal gépp di nuyu diaspora bi yëpp di nuyu axlu làmb bi yëpp di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di nuyu sunu sunu gouvernement bu bees bi président Diomaye ak premier ministre am Sonko ak suñu ministre des sports Khady Diène Gaye di leen jox seen wàccuwaay baax a baax a baax di nuyu ak lu làmb yëpp nag. di nuyu parce que Asine heure ba vingt six jël nuyoo bi teg ko ci Mansour Ba un grand promoteur di xale bu yaru xale bu joxe cër xale bu am ami teggin xale bu am njëriñ xale bu fuuyul beewul. lim yor mu bokk ak ko yàlla booleel ndax li ko yàlla dénk mënoon naa dem defi leneen bu jaayoon géej sax da ciy génn ndax ndeyam liggéeyal lu ko ak baayam barke yonent bi. ma koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di nuy Papa Sow nga xam ne mooy magu xale yi di nuyu Modou Lo un grand champion grand joueur des arènes nga xam ne maa ngi ñaan mu gënnaale ko ak ñi nga xam ne ñu ngi takk ngeen bu ñëpp nekk ci ginnaawam. na mu jëlal nuyoo bi tasaareel ma ko bàyyi la kon ba ci kanam. Mm-hmm. yaakaar naa ni léegi parcelle c'est le grenier de la lutte sénégalaise bokk na ci parce que Modou Xarañ bokk na ci ñi yóbbu tey làmb ci biir parcelle fu parcelle mosuloon ne egg ci làmb. bàyyi balla làmb boo ci génnee parcelle seen mm-hmm. la loolu. Mm-hmm. bu ñu nee Angers Goura la Manga 2. Ndiouga Dia ak grand champion. nga xam ne gars yi nag nañuy wax baax baax yi te bàyyi bon bon yi. nañuy wax ci man. Hmm. sama karaas soo mosaan génn seen seen seen seen suñ fi rëcc. Hmm. ko wax. ñu ma ma ku am juga ja doone la. la waaw maa la ko wax maa ko wax fii ci penc mi. Hmm. beneen bi si topp ñu ma mag dañ ma doon moytu. kon nañuy wax nañ koy wax bu ma waxul li nañuy wax parce que saabu du fóot boppam. beneen bi ñu nga tudd Birahim parce que Assainies. Modou Lo un grand roi des arènes. ñu ñëw nga ne Franc. ñoo gën a góor a soog. Talfa. Petit Lo. mais parce que boo ko génnee ci làmbu làmb amatul. ñang baalo mais boo leen génnee ci làmbu parcelle bari na ay ndaanaan de. fi nekk. Ah, ay booy Mbàkke Fay. waaw mais nag. Dame Sène. mais nag. Euh, maam li maam daf ko waxoon. na yaatal leen. Mhm. kaay leen dikk leen yaatal leen. Mhm. si am na jamono ñi ma fee jaar ay falaawo fi nekkoon ni ki fii ma la fekk waaye képp koo xam ne personnalité nga fii ci biir Sénégal wala nga Dakar rek boo ko lambi passé si daj ko fii. fii nga fekk ma tey jii dédd fi nekkoon ak i diin ak i caxat ak i paftan waaye lépp ñaanu mag ñi la nag. ni maam li maam mu ne diggante ñaari ñaari ñaari sooror yi. kaay leen dikk leen jamono ngi ñëw yaatal leen. te yaatu na defe naa. yaatu na de. yaatu na. ay jamono kenn ñëwu fee toog wala nga jaar fi. léegi booy làmb ko baax ku ne parce que as na ngay dugal njëkk a dugal sa loxo jeexal ba pare. Mm-hmm. doog a làmbi feneen. kon ak cant yàlla la. ana Modou xarañ. mi ngi fi. mi ngi xarañ ba léegi. macha allah tabarakallah hmm? ca kaw ca kanam rek. am na loo ma waxoon de. bu yéexee maa man bu gaawee maa man dafa am ca mbaa ba ma ko waxoon. Hmm. est-ce que loolu di nga ko confirmer ba léegi. bu nu àggee ca heure ma la ko war a wax rek moo xaat la ko. Hmm. sax ma fekkoon laaj ma ko. kon loolu nii nii mënoo ko assurer. déedéet. lu tax. ndax lamb daa nekk ci guddi gu bët setagul. lamb ci boppam. daa nekk ci guddi gu bët setagul. tax na wax ci day xaw a jafe ndax bu ñu nee làmb amul tey làmb suba ndax làmb dina am gannaaw suba. non lamb ji dañ ne woon du am tey dañ ne woon làmb le 26 ak la le 27 dañ ko annulé mais finalement tey communiqué bi mu génn na tey confirmé nañ ñu. que ni lamb ji tey dafay am Badiane production moom moo tëgg tey samedi dimanche suba Mbewaan production moom moo tëgg dafay am mais après combat yooyu nawet dañuy dellu fa ñu ne woon dañuy xaarandi. kon ba ba jusqu'à preuve du contraire. kon xam nga wax ci day xaw a jafe. kon wax ci de xaw a jafe. waaye li wér te wóor mooy foog ma fekkoon laaj ma ko bu ñu fa àggee. bu fa ñëwee këppaat mu micro moo xam lu xees pecc. te ëppoon presse balaa a fekkoon de. fekkaat ma fa bu ko yàlla dogalee. stade bi nu mu tudd municipal bi. Euh, euh, stade bi ñu ko tuddee Birane Ly un grand goal. waaw un grand goal. ma koy nuyu bu baax di ko jox di ko jox wàccuwaayam. stade bi avant muy tudd Birane Ly am na nu mu tuddoon. Euh, léegi pour terrain municipal rek lañ ko tuddee. pour yi léegi xam ni stade boobu Birane Ly lañ ko tuddee. Birane Ly lañ ko tuddee un grand goal. di grand bu baax di grand bu am respect di grand bu am cër. unité mu nekk di 24 ñëpp ko jox cër ndax yaram ak tegginam. ñoom la Kiné Lam mooy looloo am waaye woy wa tey ba tey tey boo ko jeexee day mën a tey lañ ko woy mais moo tax lu baax du réer bala ko rasulaay ba tey jii ba tey jii ba tey jii góol la cim xel bala cuune dugg ci kaam waaw bala cuune dugg ci kaam kon daal yow bés boobu ngay xaar Modou Lo ci open press bi mu ñëw nga xool ko xool ba physique état de physique bi parce que Modou Lo bi nga gisoon ci shooting bi dafa mel ni est-ce que du boobu nga gëj a gis wala wala yaa ngi gis non Modou maa ngi koy gis. maa ngi koy gis daraam fu mu yendu xam naa ko fu mu fanaan xam naa ko. Modou Lo bi nga gisoon ci shooting bi mu xam naa ko fu fanaan xam naa ko. donte moom gisuma fu mu yendu xam naa ko foofu mu fanaan xam naa ko xanaa loolu gën a dee. ndeysaan léegi yow Modou bi ñëwoon bi nga gisoon ci shooting bi est-ce que Modou Lo boobu moo moo mooy ñëw damay ragal na shooting bi léegi sax dafa xaw a yàgg nag am nay fan. Hmm. dafa gën a pire. Hmm? waaw. man de Père Ndiougo man de Père Ndiougo man man de booy bi ni nga ko wóoloo rek man daf ma jaaxal rek. da dis gor. di ko bañ gàcce. man bis. di sóor lu bari. nit bu ànd moom xam ci moom loolu fu ñu taxawoon nga ko mën a seedeel. bu nekkoon ku ñàkk jom mënul bis. lu mu wax tey bu subaab du ko wax boo ma laaj ci moom du ma ci wax dara. Balla Gaye numéro 2 de le grand champion euh, le grand champion l'empereur nee na démb ci suñu émission nee na Modou mooy mbër mi gën a naqare bëril ci làmb ndax jom ji ak fit wi ak njàmbaar bi Balla la numéro 2 da dis gor xam nga na ko dem si fi parce que daan na ko ñaari yoon waaye xam na ne daan la dajal xam na ne gaynde dëgg la daan ko xam nga sedd bu rafet du yóbbu ku baax la maa ngi koy boobu te dus gor rek seedal ko lu baax loo xam ne dëgg la xam nga dëgg yàllaa ko moom. Mm-hmm. nit dina wax dëgg pare toog saa ñu ne ko mais wax fekk sax moom li mu wax parce que dëgg bàyyi force nga wax ko parce que dëgg yàllaa ko moom. Mm-hmm. bàlla ko baax la daa jox Modou wàccuwaayam rek. Mm-hmm. waaw jayu ko da ko wax dëgg. Père Siteu ak Modou ku mën. mënu ma la ko wax léegi de waaye bu bus boo ma këppee micro ma wax gis nga Siteu gis nga Modou. gis gis naa Siteu gis naa Modou. Siteu am na changement de. waaye laa ko war a wax bi ñu toogee moment bi ko waree wax daan la moodu bu dee ñàkk sax naa la ne mu dina ñàkk. père dama la daan dégg micro rek nga ne ma xale bi Tamba Tamba la. bu mag dama la daan dégg micro nga ne ma bu yéexee maa man bu gaay maa man. Hmm, ak i mamaam. ak i place hmm. tey man de tey ah. tollaguñ ci mama buñ naan Moodu moo man Siteu wala Siteu moo man Moodu. Hmm. ndax dama ne lambu dafa nekk ci guddi gu bësatugul. lu tax làmb nekk ci guddi gu bër bësatugul. parce que ginnaaw dañoo am benn changement. li fi nekkoon ñu ne dafa jógee. ngir lan xëy na moom maale wala neexatul gars yi wala yàgg na fi senegal nag moom. waaw kay jàngat nga ci am. Sénégal moom mooy la la Abdourahmane Ndiaye fa la waxoon rek senegal ñoo la yëkkati ba nga toll na tabax nu mas la nga daanu. buñ la tàccoo rek bul fecc tàcc yi jooyal yuuxu ya ndax mi ngi ñëw. Hmm. waaw. foofu la réew mi toll. foofu la toll te nag du fi gaaw a jógee nag. maanaam ku la maa la ko wax ñun suñu réew mii man loolu laa fi gis te looloo fi dox waaye li wetu daal mooy Birane yedd naa ko sore ko loolu nag te ko yedd nag. kan waaw yedd bi mooy bu ne dénkee doo xaar bañ na bañ na la bañ na la bëggatuñ la. man ci wàllu gor. Ndiaga Mbaye sama xarit la woon. dama ko daan fekk Koulibaly Diadiane te teewaawoon di tëdd moom ci biir këram jaaxaan ci biir këram. mu dëkk Tiwaawan dëkk moom Alaaji Malick bi mu faatu la ñu doog a xam ne murid la. Ndiaga Mbaye kër musta mag nangu micro ci man. Sorano ma toog rek ñu ne Ndiaga Mbaye joxeel micro bi ne musta am. su ma waree way troisième position bu ma ñëwee kaas laay dugg toog am ak sama soxna. nday mbuur bu ñu nee ma génn way bala ñëw nangu micro ba joxe ko. su ma waree njëkk a way naa nee naa nday Mbour nañ ñibbi daf ma leen wax sax nañ toog seetaan ñu mën leen déedéet ñibbi. gor noonu lay mel. kooku gor pire la doguma la kooku suma papa tuddee na ko doom. tuddee na ko baax taam bu góor bu mu am ak ñaareelu papa moom la ko tuddee Ndiaga Mbaye. një keroog ba yóbbu Touba man mi bokk naa ci ñi ko yóbbu Touba. ndeysaan macha allah kon kon kon kon kon kon seere nga samay wax dëkk Tivaouane ne ku siiw ku ñëpp xam bi mu faatu la ñu xam ne murit la. Ndiaga ñu bari xamuñu ne tàtt gën la dëkk. te mooy cosaanam. Mhm. kon gor fam daan nekk ma nga fa. waaye nag dem ba ñu yëlëb sa loxo ci ndab as gor moomu ko. kon yow li def d' accord ci. mukk ci àdduna tudd ma ci mos a mukk. Bira ba ñu nekkoon jour ngay jeexal waroon këpp ay dossier jël ay teg ci loxoom. na affectif am kenn ku ne boo amee activité demal doxi ba keroog ñoo may woo. waaye tey ngay yam ngay rootal suba heure weesu ko. mais làmb fi mu ne ay pàcc la ñii dañoo far fii ñii far fële ñii far fële xam nga ñoom ñëpp bokkuñu kàddu bokkuñu fi ñu jëm est-ce loolu bokk na ci liy defar làmb. moo tax làmb amul tànk kanam tànk ginnaaw làmb. Hmm. làmb amul tànk kanam tànk ginnaaw làmb buñ ne mille personnes ñooy bëre ñu la quatre ñoo ci am kër ñu la mille maintenant ñoo nekk ñu la quatre trois un deux ci am kër mille. promoteur ñoo fi nekk ñu ne la ñett ñaay tëgg waaye waaye quatre-vingt-dix mille yëpp dem nañ bayal ba ñàkk ànd ko waral. làmb laay gis ñu téye buntu mbëru euh, ministre làmb ci bunt nga romb ko dañ ko téye sa waay dañ ko téye tey laa ko romb dañ ko téye tey bég kontaan. ñu seen xol àndu lañu añaan dañu soxor. moo tax duñ dem fenn. ku ñëw day ngelaab rek war dawal ba ba ba mu neex ko rek mu mu mu dina nga laa sànni uuti keneen ku mu nga laa loolu moo leen dal ba keroog làmb yàlla yoo bufta bi. Ah, loolu de looloo am de tant que ànd yu nekk benn. waaye jomaay baleem nga ko yaakaar ne balay tànk la pour mu pousser bale gi mooy takku ànd. sa yu bale mënoo ko damm. mais benn bale boo ko ne tëpp mu damm. baleem googu symbole la day wax. mais ci ñam teet. Hmm. làmb àndandoo dina ci jafe de. du mas a am. mbër gën a bañ morom xanaa xam ne mbër ak sëriñ ñoo gën a doy waar ci àdduna. dégguma la. mbër ak sëriñ ñoo gën a doy waar ci àdduna pourquoi ma wax la loolu. tey boo demoon seeti benn sëriñ may sëriñ ma dund sëriñ nga dem ci ma dund ko njugoo ko bari xam-xam la xamul dara. parce que boo fa nekk naan ko bari xam-xam la xam-xam day xam-xam day suulu seen wax du sori. dana la xamul dara. mbërum làmb boo ne diwoo fi mën mën la mënul maa ko mën fuuf mënul dara. ñaar ñoo ñoo gën a soxor ci àdduna. te coxor li Max Mbergane di wax rek daa tardé ndax bi baax daa tardé bi baax di départ moom pareegul kon soxor dafa tardé nañ bàyyi soxor gi ak añaan gi ànd nekk benn ay niir bu ñu bokkee bëgg-bëgg dañu ànd nekk benn suudewu luñu ministre bi mu ker mi recevoir lu làmb dañu waroon dugg si rek mu patiné. et soxor gi ci biir làmb ba léegi mi ngi sax ci micro yi nekk ci plateau télévision yi. yéen bu ngeen amul chance dañ leen di ngeen dee. waaw rek day taal yi barke billaahi la si ku ci amul sax da ngay lay jox micro nga ne sa baat mel nañ ko gorse. yàlla ñu yàlla parce que soxor ak añaan. Baye Balla émission bi mu def démb ñu nga xamul dara Baye Balla moo ma xatal ci émission boobu ba tax na mënutuma faa bokk Baye Balla ni ma yooyu rek waxuma la mu ñu defal la gàllaaj mais yooyu rek mën na la tënk mën na la rey nga dee. dañu soxor dañu añaan. tant que loolu jógee fi nag làmb moom nii rek. boo wattalee ba ay millions ñëw dugal ci boo lëbee nga yalwaani boo liggéey sa xaalis ñëw dugal ci ba liggéey nga yalwaani mbërum làmb mu ci amul chance dëgg bëree ba bàyyi làmb torox xam nga tax ngay torox mbërum làmb am na rëy gu ne bu mëntul dem ci làmb rus naa jël seulement taxaw marché Colobane di ko jaay. demal marché Colobane ñaata mbëri ngi nii bëree wuñ daaw ba ren. waaw fu mbër di muccee ci làmb. xanaa ak ak reporter am nekk benn. ànd nekk benn. ménagère bu ne xam lan mooy rôle ménagère promoteur bu ne xam lan mooy rôle promoteur seen seen bi leen dirigé xam lan mooy rôle làmb ñu ànd nekk benn liggéey kenn ku ne gis sa bopp mais bu fekkee kenn ku ne day fëgg dënn na man la du ci doon kenn. du ci doon kenn yaa ngi woon ci ministre bi ah yaa ngi woon ci point bu am solo aussi actuellement ni boobu ba léegi axlu làmb ku ci nekk yaa ngi toog di xaar di déglu pour ñu lettuñu wala ñu firuñu mais boobu ba léegi ñu déggu kàddu ministre bi. man Senghor ba léegi fi la ma fekk. Mm-hmm. fekk naa nguuru Senghor fekk naa du Diouf fekk naa Abdoulaye Wade fekk naa Macky Sall yàlla boole na ma ak Diomaye aussi. kàddu gi moom mos dégg ci ministère bi ci ministère bi état bi rek laa ko mos dégg. dem leen ngeen seet trois ngeen ñëw ki ngeen joxe ma dugg sama bureau xaatim du loolu la wax. gars yi dem tànn. ñii na diw la ñii na diw la ñii na diw la. mais ñii na diw la ñii na diw la te benn benn benn benn benn benn benn benn benn benn ndigal jógegul ci ministère bi am ñu gën di défilé wu naan diw a gagné diw mu jël dossier bu roof ci taabal ji te kenn amul sañ-sañu na ko génn dossier yi nga joxe verdure bi kon làmb toujours dañuy xaar moo tax lépp loolu namm te bokkut ak namu namu yàlla sa namu namu dafay xaar sa namu namu nag bu tombéeg namu namu yàlla boobu namu namu dox mais namu namu gars yi tombeegu léegi namu namu yàlla de. loo bëgg a tombeegu léegi namu namu ministre bi aussi. loo wax foofu ci namu namu. parce que benn nit bu ñu la defal nangam loo xam ne ustaam ministère bi daal ñëw rek ne diw demal seeral ma làmb. Mhm. loolu moo fa am tey ñëw ne demal tànn tànn nga ne rugu toog dégloo ba pare ngeen waxtaan seen biir te li may gën a naqar ci axlu làmb bu leen si ne tey fekk leen mu suba amitié. duñ def benn béréb dañ jékki-jékki rek baab bi koo dem kenn du bokk ak morom xalaat li gën a li gën a li gën a doy di loolu ci ñoom loolu ci la bokk ministre bu ne laa soxla leen la samedi war nga am fu la col ne ko samedi dafa gàtt dañu war a gis suñu biir avant ñu ñëw ci yow. war na yow yaay kan waaye yàkkamti tax na ba kenn ku ci nekk booy dem soxla yóbbu programme ni nga ko sentir rek noonu koy waxee. dina gën a réelal am na ci ñoo xamante ni nee nañ ministre bi ñoom li leen gën a naqari mooy ministre bi moom bi ñu ko falee ba léegi mu nekk ministre du sport de la culture ba léegi ba fi may waxee géew nii mënul togg ak ak axlu làmb pour waxtaan ak ñoom. parce que <laughs> ñetti ministère la yor est-ce que dégg nga ñaari ministères yi kaas lu mel noonu ah seenu doye di moo tax ba léegi toogut ak ñoom. Hmm. bi mu leen njëkkee recevoir bu fekkoon bi gaa yi ñëw dana am lu mu yëg moom pour mu recevoir yomb day gaaw. mais xool na sant na yëgul quoi ñii yëngaluñ ma quoi ñii déranger wuñ ma ñii daal xaaral ma mujj leen quoi. parce que ñaari ministère yi ma def naa sax moo pën sax ñi quoi parce que ñii xam naa ne ñu way di lañ ñu ñu doy di lañ xaaral ma liggéey sama liggéey ba keroog may mën a jublu ci ñoom ma jublu ci ñoom loolu tax mu dóor leen ci xeer yi gome leen. loolu lan moo ci indi saafara. nekk benn rek ay nit bu ñu bokkee bëgg-bëgg te kenn mënut a jël sa wàll dem da ngeen di waxtaan diisoo. kenn ku ne nekk sa alkaati moroom su ko defee fu ñu bëgg dem dem fa fu ñu bëgg àgg àgg fa lu ñu bëgg wax wax ko te kenn du leen mënal dara am na dëkk yoo xam boo fa demee sàcc dañ lay rey police ñu ñu ne ko ñun ñëpp ko rey am na fi. waaye ñoo xam ne tey jii bu ñu woon bu xamul dara ñu ne diwoo ko wax de daal di kenn ku ne ba see loxo taw yu fële <laughs> ministre bi lay roq rek di dugal ci taal bi rek. gàncax gu jeex rek mu dugalaat beneen. nañ nekk benn nekk nit. mbërum làmb bu dub dof mbërum làmb ak fa sukk su rek laay gis nga def yaram ne ñu lay seetaan dafay xaalis dëkk ci étage bu jat trois cent millions di dawal oto bu jar cinquante million bu ngeen day ci sëriñ moo leen njëkk a dugg kon ku la bëgg a tëgg daf lànkal dañu nekk nit te xam ne pami ku ci ñëw dina di gunge rek buñ ci bokkul amatul. waaw. Euh, jërëjëf loolu benn point bu amoon solo la ci ci waxtaan wi waaye ba tey euh, du ma la bàyyi de wala balaa ma lay bàyyi tey dama bëgg nga wax ma ci Tambala sa béy bi parce que man xam naa ne li nga xam ci moom ak ni nga ko maîtriser bariwul ko maîtriser foofu fii ci biir parcelle Modou day bëre di bàqu ma gis la nga daw xabtalu bés boobu lan moo waral loolu benn. booba. da ngaa gisoon ndam li wala. waaw gisoon naa ko. pourquoi ma gis ko mooy man bëri naa ba bàyyi bëri xam naa lan mooy làmb natt naa camp bi camp bi nga xam ne ñoom laa ko séqal gis ci ay teet yoo xam ne ba leen xam maîtriser leen gars yi jël leen taf leen seen boor xalaatu ma noonu sax kooku dina ñëw ci làmb ji mu sol koppatam ak xaftaanam ci écran bi laa ko gis waaye joxante wuñ loxo ci laa nag défilé wu nag. ne ko yaa ngi jàkkaarloog sa waay nag. bilaay la si bi may jóg ko di défilé lool moo tax mu wu. muy sama xarit boo xam ne tey ji bu ma demoon dëkkam. buntam laay fekk bu doon te quatre heures du matin sax mu ubbil ma. nekk ci li ma neex ba keroog may génnaat. li tax ma défilé wu keroog loolu tax ma défilé wu. bi ma sàccee pare sama doom moom mu njëkk woo sama taaw ne ma papa ma ne ko daan rek mooy raxas lii de. te damay daan. daan rek mooy effacer pooj bi de te may daan. kon bi may fecc feccuma parce que damaa bëgg a fecc rek fecc parce que sax ñu ma sa gis sama fecc bariwul waaw <laughs> te nag bu gars yi umpale mën naa lépp loolu de lu dàq loolu sax ma naa ko de. boo gisaatoon loolu ci combat bi. ngeen defaat ko ko dàq fuuf. déet waay père ah soldat soldat rek la mën a doon. Hmm. ginaar boo ko fekkee ci buntu ngunu doo ko laaj lu mu fi wut. Hmm. mais nag dama yaakaar ne bii sa gis-gis da cee soriwul parce que bii nangu woo ci bii laa gën a maîtriser sax que bu fi ma sa jaar. Hmm? waxtu wax ca moo jotagul. est-ce que da ngaa ragal tarkindaa bi. non bu ma bu ma sax kuy ragal. Hmm? sama kër sax gone yu ndaw yi sax. xam nga fekk fii. su ma ko waxoon jógal du jóg parce que ragalul. Hmm. waaw ànduma ko ragal. père da nga dafa mel ni da bàyyi xel tarkindaa bi. tarkindaa bi bàyyi naa ko xel parce que pourquoi bàyyi naa ko xel. Hmm. jàmbaar la. ràññee na ba si fii bu dul woon jàmbaar du agsi fii waaye nag ma ko xel cent pour cent. waaw bàyyi ma ko xel cent pour cent bàyyi naa ko xel nag parce que mbër la nun lay dajeel daa ñafe ba ak si fii naa naan dëgg la su jógee àddina bépp jóg sama doom la maa ngi koy nuyu de passage waaye bu ñu àggee ci waxtu wax wa naa la tegal lu mel ni midi ci taabal ji. bu ngeen xeexee. du ñu àggagun foofu. bu ngeen bëree. mënu ko maa wax ci foofu. no carte gi changé na dégg carte gi tey gën a valable. ma ma doon déggatuma déggatuma affaire ba. oui ma tey la gën a valable. moo coupé. non mais doon déggatuma Père Ndiouga Dia xàmmeetuma Père Ndiouga Dia. mi daan wax heure mu ubbee doo gis Popa as rek ngay gis. maa ko wax carte gi heure gis Popa as rek ngay la ko wax. maa la ko wax. bis mu ubbee. doo gis Popa as rek ngay gis. Mhm. kon carte gi jaxasoowul si kat du fi jaxasoo. combat yi nga mës a bëri yëpp est-ce que du bii moo la ci xaw a jaaxal. bi jaaxaluma. est-ce que du est-ce du booy bi combat bi daf ko jaral lu ne. Baye Bal naa la ñamal tuus. tarkindaa bi. Baye Bal naa la ñamal tuus sax te fa laay yem. bu Moodu mës a bee ci gën a yomb. Ah. ñu gaa ngi wax nag. jeex na xanaa loolu mooy kokkoo ji. combat bu mës bu muudu mës bëree uh-huh. bee ci gën a yomb bii nga ci gën a yombal yow gisuma ci benn danger yàlla mëttim xam na ko ci bëri bi ci xeex bi gisuma ci benn danger ci préparation bi bàyyi ci benn danger ci wàllu mystique waaye itam ku dajeeg Bombardier waaw dajeeg euh, Lac de Guiers mm-hmm. dajeeg Eumeu Sène nga xam ne mooy daj dëpp gi mm-hmm. ëkk bi nga xam ne pour nga dérasé ko yombul te jom ja ca fulla ja ca fayda ja ca mën a bëre ga nga dajeeg moom deux fois te ni ko ànd seeg di mbër mu digg doom munoo munoo jaar ci yeelam munoo ko jaar fenn di ko organiser ba defal ko bagage deux fois kooku leneen matul ñuy wax. combat mu Modou mës a bëre bi moo si gën a yomb. loolu kay maa la ko def. ñi naan Modou dafa am problème mu bëri njool nag ñooñu loo leen di wax te Siteu dafa njool day day day tim Modou. ak i njoolam. gàtt sax du ma ko wàcceeg njool mu tooy. te dafa mel ni Siteu màgg na de. ah bu màggee nu fi lay fekk. Hmm? bu màggee. si la dëgër fii la la fekk. bu màggee fii la fekk ñun bu màggee moom fii la fekk bu màggee ñun nan la war a def ñun. Siteu dafa entraîné ba am doole lañ wax lii. ci bi ki la jiit teen bi root fukki paan ngay doog a ñëw ak sa ñetti siwo. booy yi nee nañ boos bi tarkindaay nee nañ boos bi doole la de. waaw yooyu mën na nekk mais les jours si lañ koy xam. dañ xam doole la wala leneen la. yàlla nay jàmm rek nag boos bi yàlla nay jàmm rek nag ndax su ma sañoon Siteu dara du ko jot ndax euh, homme du social la ku baax la ci fu mu dëkk ku ñu ràññee la Siteu bu xëccoon maire yi. jàmm gën jàmm gën da koy gañee. ca yar ba. Mhm. ca teggin nga. Mhm. ca tabe ga. kon donc ñaanal ko jàmm rek moo war. Mhm. parce que benn homme la ci biir Sénégal. li mu mën jafe na nit mën ko. kon dañ koy ñaan jàmm ak salaam rek mais nag bu looloo jàllee nag lamb moom combat bu ma sa bëre bee ci gën a yomb. bi moo ci gën a yomb. waaw maanaam su ma la déggee bu baax bu dee xeex bi Modou moo ko daq bu dee bëri bi Modou moo ko daq bu dee pare Modou moo ko gën a pare. mais Baye Balla. combat bu gën a yomb nga ma wax. mais Baye Balla fi nekk am na ñoo xam ne ñu ngi roy ci yow. soo ko yëgee boo ko yëgul Baye Balla ni muy tegee micro Baye Balla ni muy demandé ni muy laajte Baye Balla ni muy sañse ni muy tegee. nga xeeb ko wala nga naw ko ñu ngi koy roy ci yow. mais Modou day jëm joo xam ne ci wàllu takk ngemb rek man tey lépp lu may jiite ci wàllu takk ngemb rek mu takk ngemb tuura ndaw daw romb la taakatoo gu ci dënnam bu wax bu dee sa benn mbokk waxuma ci kaw benn mbokk ne dama koy daan waaw ndax moom tam ca jom ja ca fulla ga ca man bis ba ci bàyyi xel lu bare bare bare bare bari loolu dafa daje ci moom bëre moom kenn du ko jàngal mbër nag soo ko mu tudd ma mënoo koo rañaan àgg ci moom daan ko boo ne dama koy daan dangaa wax li neex li gaa yi bëgg a dégg rek. mais combat bi bu duré bu duré ñaari ñaari xale yi seen combat bu duré avantage kan. combat bi mënul duré. da dul yàgg. ah du yàgg non non ma laaj ci loolu parce que du yàgg. Hmm. déedéet. bu yàggee rek am na ku am bu yàggee rek am na ku war làmb kan mooy war làmb mooy nga xam ne bët bu gëdd bët bu neppar bu ñu ko gëddee mu jéggi saako yi taxaw ñu dellu siwaat ko bu yàggee loolu rek mu fay am te yaakaar naa dootu fa am ndax ñaari góor lañu kon combat bu gaaw nga gis. déggu ma la combat bu gën a gaaw ci làmb ci moom boobu ci la bokk. waaw loxo dem loxo dana dem ci gi mu tuddoon tuub ceeb de. <laughs> la ilaha loxo. da koy peen juga. dana duggati ci gémmiñ te du ànd ak tibub ceeb. Baye Balla. moom man de xaw ma peen juga xaw ma daa xam muudu xaw ma daa fan muudu dafa dem ba def ko fan xam na xanaa muudu da koy da lay fàttali sa génération parce que dégg na ndaanaan nga woon. sa komba sa combat dégg naa ak Balla Gaye numéro xam nga xam nga xam nga bu fekkee da nga nekk jàmbaar ànd jàmbaar. Modou bu nekkuloon jàmbaar bàyyi naa ko bu yàgg. man du man rek yaafus bu nekkuloon jàmbaar nee naa ko fulkan bu yàgg. da nga sa jëmm. waaw dama koy gis ci sama jëmm jom ja. Mm-hmm. ful la ja faada ja ñu gunge la ba nga àgg. nga ne nag gars yi mu gunge nag mat ma li des nag man la. Mm-hmm. man dama ko gis ci moom. Mm-hmm. bu demee ba ci biir làmb ba des ñu naan grand grand combat grand combat Modou gisutul Père Ndiouga gisutul Ibou Diouf magam gisutul Pambay Kot gisutul kenn man la lay wax man la. te c'est très rare le combat di am mu ne nangam dana am te loolu amul. yi muy defet yi muy amee defet yëpp <laughs> du du lu ñuy wax ci penc rek waaye am ñoo xam bi ñu dem ci làmb ji yóbbaale nañ ko waaye nag du lu ñuy wax ci penc. waaye moom moom lu muy amee defet nga ne yóbbaale ngeen ko ci làmb ji. waaye am amee defet yëpp. bi ñuy dem lambuj ji baal nañ ko ci làmb ja. maa la wax loolu man man mi maa wax loolu xam loolu tey laa ko mos a wax combat bu mu amee defet bu nekk man man ba may dem yóbbaale naa ko ca làmb ji man Ndiouga Dia. yóbbaale nga defet bi yóbbaale naa defet bi man Ndiouga Dia. nga xam ni kii tey bu demee dafay daan. barke El Hadj Malick barke Aboubacar tey laa ko mos a wax. te doog ko wax moom. déedéet. da koy bàyyi mu dem ak xelam mu dem ak xelam am na ñoo xam ne naa leen wokk dey leen ko. waaw man am man man am na ñoo xam ne man woo naa leen ne leen combat bi du baax nii lay demee. nga xam ne tey du baax saa nga toog ti woo naa fi ay nit ñu toog man leen lii lay am ci làmb ji fii la làmb ji yàqu moom am personne bu fekkee mi ngi fàttaliku fàttaliku heure bu ñu daan mu entraîné dix danaa taf sama dënn ci dënnam ah wax baaxul waaye. Hmm. non wax baaxul. Ah, non non non non non yaa ngi may tàngal. foofu laa yem foofu laa yem. foofu laa yem foofu laa yem foofu laa yem foofu laa yem foofu laa barke Babacar si foofu laa yem ah, ah, voilà loolu de mënuma ci dara mais bu ñu ñëwee ci wàllu dopage gis nañ Père Ndiouga ancien lutteur la macha allah bi mu bàyyee ak làmb ak léegi yàgg na ba mais ba tey macha allah macha allah mi ngi garder maanaam mi ngi garder euh, état de physique bu baax ah loolu ñàkk jël ay anabolisant la wala ñàkk jël ay dopage parce que bëri na ci mbër yoo xamante ni gars yi dañ leen di jiin ne dañuy dopewu xam nga te dopage baaxul ci carrière mbër pour man nan ngay conseil xale yi nga xamante ne ay <laughs> xam nga dopage dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko fixe ci naan ay doom rek wala naan ay ay ay ay kii ay bagages mais tranquillité day dolli nit ki mu nekk nit ñu bare gi jeexal seen àdduna xool ak yóotu loolu jot ba ma ngay dugg suuf moo leen wàññi moo leen xaaf bu boo leen gisee doo leen xàmmee. man nag dara dafa réyul ci man. dara ngëndul ci man man keroog ba ma yóbboo néew armel ñu gas ko suul ma dellu soit kër gi toog sama kër li mu ñaaw ñaaw tey laa gën a téye ndax benn armel la gën a ñaaw fuuf ci boo fa def lu baax. lu kër ñaaw ñaaw bàmmeel ko gën a ñaaw ci boo fa deful lu baax. kon nit tranquillité da koy da koy da koy dolli mu nekk nit tranquillité day tax foo gis xam ne kii il est serein comprendre nga mais fekk da bëgg a jël àdduna def ko sa poos loo gis bëgg ko moom wala nga bëgg naa mel te yàlla dogalu ko ku la gis ràññee la xàmmee la man nag loolu def ma dalul man lu ma am doy na ma lu ma ñàkk muñ naa ko loo ma boole bokk loolu ci sama philosophe la bokk. doo ko defee doo ko mukk ci àdduna jamais. mais xoolal yow yenn saa ngi day nit na mi kii kan la fekk na dara daa yenu loo xam ne kenn du ko ne yenn ko. te loolu rek la am ñoo xam ne boo la gisee ñu ne man maa leen mag nga ne déedéet te dara war lu ko daal jël àdduna ndar képp ko te <laughs> àdduna kenn du ko ndar képp. kenn du ko ndar képp. dem bay stress bi yëpp la doole. nga pare teel a sa xel tuxu sa xel tuxu bu xel tuxoo jëmm tuxu nit jëmm la bu xel tuxoo rek jëmm tuxu ñu bari ngi bu ñu takk tubéy mu rafet. kon bu nu doyloowee li nu am te bañ di ñeetaate dafay meex fu la waaye gis bëgg la fonk la. waaw da ngay belli. ngay wax de. da ngay belli. kaas yi wute waaye ku xëy góox per. ah kaas yi wute waaye ku xëy góox. barke Nabi Moustapha. sëpp góor nga fi ngaañ góor nga fi. bu ci nekk góor la. kon donc na yam ci li nu yàlla jagleel. te bañ a yóotu loo xam ne coono la doon ci ñu bëree. ñu ñu waaw wax la ñu bëree ngi nii tey boo leen gisee doo leen ràññee yóotu luñ mënta jot la wala diwoo xeeñoo lu ñu diwoowul. xeeñoo lu ñu diwoowul am na ñoo xam ne rus nañoo rus nañoo dugg Ndiaga Ndiaye wala car rapide. am ñoo xam ne gor lañ gor gu toll ne. man de père ba man de père ba léegi damay dugg ñaga ñaay ak kaaraat. waaw mais ma as gor. ak mais pourquoi pas. amagu moo tax moo tax dama ciy dugg. mais pourquoi dugg ci. parce que Nabi Moustapha wulee le problème. dem fi may dem. pourquoi pas. <laughs> lan la. wàññiwul dara. tous. te as gor nag. dangay ngay wàcceel sa bopp wàcceel sa bopp sans borom yéegal la. loolu wax yàlla la. Mm. wàcceel sa bopp ma yéegal la. man na ñuy wàcceel sama bopp man ci laa bokk. waaye xeeb na ma fekk man ku ko doy di laa man man waaye xeeb na ma fekk na man ku ko doy di laa man man façon doomu aadama yooyu laa. waaw. daal xale yi li nga leen di diggan mooy ñu garder seen. garder sen ligne. Mm-hmm. weesu nga téye sa mentalité. Mm-hmm. sa servo bëgg lu mën a nekk di jéem lu mën a nekk di bokk foo xam ne ku la fekk doon la may qu'est-ce qui se passe lii lan la. Mm-hmm. loolu c'est très important. important xam nga tëdd nelaw dafa neex. lekk bu rees dafa neex logique mooy base bi gën a riche doomu aadama logique boo ko defee booy dox doo gestu dëgg la xam nga ku jub mhm. boo ko nee eey mën a taxaw ne kee de lay woo mais ku jubul boo ko nee eey dana ay kii dama ma gestu mu jàpp ma mhm. day waaxu wéy romb la yàlla na yàlla def ci ñun jub ak boo boo jubee doo am fenn sens intérêt. jamais. di wiiri koñ rek. wiiri koñ. Hmm? waaye ba ma jublu woon nag ñoom nga xam këpp micro may wax. waaw man ngaa ñëw fii dama jël sama biir kër gi nga xam ne tey ku ñëw dama seet fi may fekk direct. 86 ba léegi fi dëkk. ku ma jur fi nga juddoo. kon daal jub jubal jubbanti. waaw jub jub jubal jubbanti. wax. Ah. ak Sonko. Ah. mooy baas bi. Eh. <laughs> looloo sama philosophe sax man. jub jubal ak jubbanti. boo ko defee am tranquillité man ci loolu laay dund. ku ko def man yow ku ko def mën a suuf tegg. mais nag loolu ku ko def da ngay am waaye jàmm nga am ak salaam. ku la da ngay boo tëddee nelaw. waaye ah, ala mu nga naan jaar na nii. xaar ko tuuti lee mu ñëw yàlla ci yàlla musal. barke yonent bi maa la gën a bëgg Baye Balla. fekk la fii waaw. wax dëgg yàlla tey fii ma la cosaan waaw yàgg na. et bis boobu nag et puis bul bis boobu. <coughs> Euh, Mansour Ba daf ci sargal baay bi. ah Ba. waa dina ma ci boole sax na xam naa man dina ma sargal ah. ku sargal père ba rek sargal nga ma ah. ndax père ba mooy suñu père mm-hmm. bu ñàkk kañaan bu soxorul ah. père ba am na nu doon dundee mm-hmm. ak aasam ak kilifteefam mm-hmm. danaa ma lamb dépassé naa ko conseil booy bi ne ko sa dara bu ko def ci lamb demal doxi leneen booy bi mën naa liggéey beneen liggéey bokkut ak lamb mais bëgg doomam bëgg ñu ko yàlla ñu maaseel jamono bëgg dimbali sones bi moo tax fu doom ji taxawee rek mu doxat mu doxat koy tànk mu dox mbir mi lu mën sóor ba de père balaa lu mën sóor ba de père bala père moo ne ko foo foo joxe ñu sa loxo bu gàttee ma yor fa sama loxo mu àgg mu sës maa taxaw mu wax waxuma pour lu ma neex de père moo ne ko xolal foo làmbee mu dëgër ma ñëw dóor ci mu nooy père ko wax waaw kon fu ñu sargale père sargal lañ ma yàlla ñu ko fekk te tal ko sargal père tungo mar roi bi indi ko biir parcelle ñu bëggee loolu daal lay ñaan yàlla nañu fi yàlla bàyyi ñu fekke ñu fekkee ko te tal ko bésu le 24 euh, novembre ah mbokk yi ñu ànd ceeg jàmbaar production ah comme ni ma leen koy waxee rek saa su jàmbaar production ay xale lañu mais ay xale yu am jom lañu ay xale yu am vision lañu ay xale yu xam fi nu jëm lañu waaw donc ñu bàyyi xel bu baax bis boobu bisu le 24 novembre incha allah ak jambaar production mbokk yi loolu ci arène nationale. Mhm. lay amee diggante Modou Lo ak euh, Siteu te ci bis ci bis boobu nag incha allah am na yeneen combat yoo xamante ni ak combat espoir yi la combat daanaan yi bés boobu ku yéex mhm. doo am mhm. place waaw mbokk yi bés bi père ba lañ ci sargal de waaw bés bu mag la du bés bu ndaw waaw ñu ngi leen di jaajëfal. bu baax a baax a baax di leen xamal ni euh, bég lu bu baax ah di nuyu mon ami mon frère Ndiaye Dem Seck ah moom tamit ma nga ca Evian ca France ah di nit ku baax koo xamante ni moom it xam nga saa su ne vidéo bu ñu def ah daf ñuy daf ñuy daf ñuy topp di ñu seetaan. waaw hmm. ah, te ñoom ñi lay seetaan ñu la ëpp xam-xam gën la xam yow li ngay def lan la gën la xam li ngay wax loolu moo ci gën a graaw moo ci gën a doy waar. moo tax képp kuy yor micro bi di ci wax lépp loo ciy wax. war nga ko xool lépp loo ci def war nga ko xool parce que ñi lay seetaan te ëpp la xam-xam te gën laa xam li ngay wax moo moo bari ah, donc njaa dem mon ami moo frère maa ngi lay béggee bu baax a baax ah ay sa Mbaye sa yaay ay Aïcha Mbaye ndaanaan bu mag bi nekkoon ca Sorano waaw ah, bëgg naa la waaw ay sa Mbaye Ndiaye sàmm mbuub Kiné Lam ah Ajaratu Xaar Mbay ma jaaga ma jooju ñi ngi ñoom ñëpp ñoo nekkandoo woon théâtre national Daniel Sorano waaw ah, tey dama ba kóllëre googu gën a dox sama diggante ak moom maa ngi moom depuis Maguette Codou Sarr Ndiaye daaja frère bëgg naa la mais Medoune juuf maa ngi lay bëggee di bé bëggee sama euh, rakk ji ma àndal Maguette Mbaw ah mu Alaaji Omar Mbaw ah ca Pikine ginnaaw raay ah moom mii papaam la njëkk a def premier chef de quartier de ginnaaw raay sud maa ngi koy nuyu bu baax a baax di wax ni bëgg naa jaajëf yàlla dolli jàmm